mbir yi dafa dem ba tàmbali soof yiwa di am ci ak ñàkk a wekk yi ndax fa nag dëgg neex yàlla yéen yéen a toog rawatina président Macky Sall ak Moustapha Niass ngeen auditionné seeni candidat sénégalais yi yeeyu ñu ci yàbb ci waxuñu leen ngeen tànn kenn mu nekk seen mbootu biir seen fóotu biir néeg ngeen def seeni audition seeni candidat bari ngeen dem ba toog tànn amadu Ba ñi ci d'accordul am fulla dem seen yoon dem bi sax est-ce que wér na bref pas important dem seen yoon ku ci mel ni Aly Ngouille ku ci mel ni Mohamed Boun Abdallah Dionne ne d'accorduñ ci loolu président Macky Sall yow yaa toog nga ne moo ci tane ba nga ko waxee sax dama ne président mënoon na gën a rafet nel moo ci moom sax laa am yaakaar mais moo ci tane doyadil nit la ngeen tànn ko sénégalais yi ne seen nga newu ci ngeen investir ko ñam bokk ak seen coalition bennoo Bokk Yaakaar PS investir ko AFP investir ko ak yeneen parti yu ma xamul waaw Amadou kay seen seen Amadou la na rafet xam nga benn jour mas naa toog fi na leen sama yoon newu ci sax kàccit leen ma ci wante defe naa ne boo tànnee nit boo ko tànnee ba pare boo demee ba yow nga d'accordutul ak moom mais eh, da ngay jël ses ko on se sépare waruñu poñe réew mi ci loolu sunu yoon newu ci dix-neuf ñoo yem d'égale dignité dix-neuf candidats d'égale Amadou Ba ëppalewul dara Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall Aliou Mamadou Dia candidat la ci ligne de départ comme ñëpp xooluñu ko comme lenn lu ñuy wax ci course automobile ay écurie la mu jeex tàkk ñu war a tàmbali mais yéen seen problème personnel gérer leen ko waaye ñun leeni wax na rafet parce que nag yéen tànn seen candidat yéen toroxal seen candidat yéen koy jox ay gàllankoor seen tànneef la ah seen tànneef la mais mën na gën a rafet parce que toroxal bi jaru ko ñun ñoo tànnoon ñun waa parti bi waa coalition bi d'accord atuñ ci <coughs> yéen kay ngeen xool noo leen sen bop ji nak ba pare nak may len nu li mun ta nek suñu sukkandiku pour lan pour wax ne ay processus électoral bi nañ ci langaamu arrêté ko ah non quand même il faut qu'on soit plus sérieux il faut qu'on respecte wax naa ko dem il faut qu'on respecte les sénégalais réew mi du foyekaay donte jàpp nañ ko ay foyekaay parce que ay nit ñoo xam ne fa dëgg neex yàlla kuy waxal dëgg rek bu nguur gi changé ngay xam ne c'est des accidents de l'histoire yàgg bawul dara ñun nag ñun ñoo toogoon ak yéen ci ban bi fekkee lépp xam lépp mais dañuy am retenu ci lu bari comme Amadou bëggatu leen waaye waaye ngalawaay